بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi subhaanahu wa taala ba tey ñu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey dinañ jël ñeenti aaya aaya cinquante neuf soixante soixante et un soixante deux ñeenti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróomi mbir yooyu bi ci njëkk mooy bayaan mazahir alqudra wal ilmi wal xikma lillahi taala sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi ñuy leeralal ci aaya yi nekk sunu kanam mu ñuy feeñalal kattanam moom yàlla ak xam-xamam ak xereñam ñeenti aaya yi ñu war a jël tey li ci njëkk li ñu yàlla di wan moom borom bi tabaraka wa taala kattanam dooleem dinañu ko wan ci mbindeef yi nga xam ne moom la bind dinañu ko wan ci jéeri ji wan ñu ko ci géej gi wan ñu ko ci garab yi moom subhanahu wa taala waaye dafa mel ne doomu aadama yi sunu borom subhanahu wa taala kattanam gim leen di won duñ ko gis waaye ku xool àddina bi xool asamaan xool suuf xool géej xool dex yi xool àll yi xam ne ki def lii boroom kàttan la waaye xam ne ki def lii boroom xam-xam la li doy waar tey mooy doomu aadama yi dañuy yéemu ci lu nit defar fi mu nekk ni lu bees lu nit ñi génne rek doomu aadama yi yéemu ci waaye du ñu yéemu ci lu yàlla tabaraka wa taala def te aaye yi dañuy wan tey kàttanu yàlla waaye ak xam-xamam waaye ak xereñam ne moom yàlla lu mu def rek lool la loolu la ñuy jël ci aaya yi ñaareel bi dinañ ci jël istisaarullahi taala bi ilmil gayb moom yàlla jagoo bu mu jagleel boppam yeyoo ko ci moom kenn moo xam kumpa amul kenn kuy xam ëllëg la ca nekk ci ay xew-xew ak ay programme kudul yàlla tabaraka wa taala loolu tey boo koy wax ci réew mi mel ne Sénégal di nga dégg ku taxaw weddi ko ne am na keneen ku xam kumpa te kumpa moom yàlla rek moo ko xam kumpa mooy lu fàddu loo xam ne gisoo ko kenn gisu ko loolooy kumpa loolu nag sunu borom subhaanahu wa taala moom moo ko yeyoo moo ko jagoo moom dong moo xam ëllëg la cay xew ak la ca nekk waaye keneen xamu ko ñetteel bi mooy kitaabul maqadir xawaa kulli shay xatta suquutu alwaraqa min alshajara wa ilmu allahi bi dalik téere bi nga xam ne mooy téere dogal yi nga xam ne ci la yàlla dogal lépp mu nekk ci lawxul mahfuz nga xam ne lépp la ëmb sunu borom daf nu fay wax ne même garab yi seen lim banqaas yi xob yi yàlla xam na ñaata la yi tooy yi wow yi nekk ci kaw garab gi yi wadd sunu borom xam na ko jalla jalaaluhu loolu moo lay wan ne kattanu yàlla tabaraka wa taala loolu nag sunu borom enregistré na ko ci téere bu tudd lawxul mahfuz ñeenteel bi mooy sixatu itlaq al wafat ala nawmi jàng gi ñu jàng tey ci aaya yi sunu borom subhanahu wa taala di ñu leeralal mu wér ne nelaw dee la yenn saa yi ñu firee nelaw dee loola tax sunu borom subhanahu wa taala mu firee wax ji mu wax li isa inni mutawaffika man dama lay faat dama la rey kon léeg-léeg baat boobu di alwafaat nekk nelaw waaye léeg-léeg mu tekki dee wér na borom bi tabaraka wa taala wax ne isa dama laa faat juróomeel mooy taqrir mabdaul miaad wal xisaab wal jaza bokk na ci li ñuy jàng tey mooy saxal gi yàlla saxal rendez-vous bi mu ñu nar a dajale ëllëg waaye atte gim ñu nar a atte ak régler gim ñu nar a régler fay gim ñu war a fay encore kon juróomi mbir yi mooy mbir yi nga xam ne moom la ñeenti aaya yi ëmb bi ci njëkk sunu borom di ñu woon kattanam ak xam-xamam ak xereñam ñaareel bi mu ñuy wax ne moom dong moom yàlla moo xam kumpa ñetteel mu ñuy wax ne lépp loo xam ne dafa war a am ci xew-xew yeeg tout borom bi tabaraka wa taala programme naa ko programme na ko amul lenn lu ko raw lépp la xam mu joxe ci misaal sax ci garab yi ak seeni xob ya wadd ak ya tooy ya wow ak ya tooy ya sax ca garab ga ak yi wadd waaye wér gi mu wéral ni nelaw dee la beneen bi mooy saxal gi mu saxal ne moom yàlla tabaraka wa taala dana dajalewaan mbindeef yi pour atte leen pour fay leen ci bis boobu di bisab yowmal qiyaama ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala loolu moom mooy darsu tay bi noo ngi naan ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis bi sura ya cheikh ñu may mbokk bi mu jàngal ñu da aaye yi incha allah suñu borom subhanahu wa taala ci dars bi passé bam ñu leeralee ñiy tooñ ëllëg moom yàlla jëflante gi muy jëflanteeg ñoom ci aaya yu mujj yooyu foofu la sosee tofa toftal sofe ay yi nga xam ne moo ci tegu di ñu wax ne moom yàlla tabaraka wa taala moom kese moo xam kumpa ay magasinam ci loxoom la nekk moom yàlla moo jagoo xam-xam bi kenn xamu ko ku dul moom loolu mooy nekk aayata yi aleykum salaam wa rahmatullah jox ko ab téere suratul an'am wa indahu mafatihul ghayb
بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
baraka allahu fiik jazakumullahu xeyran sunu borom subhanahu wa taala mbokk jullit yi mooy wax ak ñun ci téeréem bu màgg bi di quraanul karim mu ne ñu wa indahu mafatihu lxaybi la yaclamuha illa hu sunu borom nee na wa indahu fa moom dong moom kenn kot yàlla mafatihul xaybi moo yor caabi kumpa yi jamu miftaax borom bi tabaraka wa taala nee na caabi yi ci sama loxo la nekk kumpa man maa ko yore waaw su borom bi ne moom moo yor caabi kumpa yi mu ne laa yaalamuha illa hu kenn xamu ko ku dul moom lii kay leer na nañ kon kenn xamul kumpa yàlla rek moo ko moom ndax moo yor caabi ndax léegi dana xelooti ñun ñu def suñu xel wala ñu jàpp ne am na ku xam kumpa ku dul yàlla ginnaaw ba yàlla waxee lii ne wa indahu mafatihul xayb moom moo yor caabi caabi kumpa yi moo ko yore doyul mu ne laa yaalamuha illa hu kenn xamu ko ku dul moom waaw kenn xamu ko ku dul moom yàlla tabaraka wa taala xazainul xayb moom dong moo ko yeyoo mu ne fala yaalamuhu siwaahu kenn xamu ko ku dul moom jëlee nañ ci al imaamu buxaari mu jëlee ci ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na mafatihul xaybi xamsa la yaalamuha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na hadis Abdullah ibn Omar nettaliñ ko mu ne caabi kumpa yi juróom la kenn xamu ko ku dul yàlla waaw laa yaalamu maa tuxiidu l arxam illa allah su góor sëyee ak jigéen mani yu daje bi mani bi di daje ndox mi di jaxasoo amagul 40 jours wala ba muy am 40 jours kenn xamagul lan la yàlla rek moo xam lan la góor la wala jigéen la wala gars yi kañ la ñuy xam lan la bu demee dem dem tuuti ñu def ay échographie ñu doog a xam ku jigéen ki lan la ëmb amma bi ndox mi di génn ci góor gi ñoom ñaar mu jaxasoo ndaw si sentir ne ëmb na kan moo xam lan la yàlla xamu ko sunu borom dong tabaraka wa taala moo ko xam mu ne wala yaalamu ma fi gad suba luy xew ñun ñu toog fii ci yàkk ji kan moo xam suba fu mu lay fekk kan ah yàlla rek moo ko xam ndeysaan damay seetaan léegi journal balaa may ñëw ay nit ñoo xam ne ci suba ñu ngi rangale ay kaar dugal leen ci di leen rawale guerre balaa ñuy dee ñu dem ba ci digg àll bi gars yi attentat kaar yi genn wàll gi yëpp dee ñooñu lan lañ leen dawal dee ndeke dañuy dee wala lool ñooñu tey ku leen ne woon da ngeen di dee yi kaa leen yéeg nga def ne danañ yéeg ma suba kenn xamul luy xew suba ci loxo yàlla la nekk waaw te tey boomu aadama yi bokk na ci li leen sonal mooy sama avenir sama avenir sama avenir sama avenir sa avenir ci sa loxo la nekk wala loxo yàlla al mustaqbal bi yadillah ëllëg ci loxo yàlla la nekk yow daal li la sant mooy jéemal nite te nekk jullit te def def say asbaab nga bàyyi mbir yi ci loxo yàlla mbir yi nekk suñu loxo chaque jour ma wax ko qissa firawna ak Moussa doy na ci Moussa keroog bi ko yàlla di labal ci ndox mi ci jamono boobu la yàlla dugal Moussa bi yàlla di labal firawna ci ndox bi ci jamono boobu la yàlla di dugal Moussa ci ndox bi kële bi ko yàlla di labal mu ngi plein pouvoir plein kii bi ko yàlla di musal mënul dërëm liir bu tooy xepp mënul sax wëlbateeku nekk ci biir ndox kële nekk ponkal yor arme bi génne lépp lu mu am yëpp yemm la yàlla wax ah wala kële fa nabasnaahu fil yammi kii lan la ñuy wax yaayam alqiihi fil yammi ñaar yëpp ndox la kii kan moo waroon lab mbokk yi ñoom ñaar ku waroon lab ah liir bee waroon lab kan moo lab ponkal mi buur bi borom doole ji kon kan moo ko kan la yàlla la kon mbir mi du ay du doole du kàttan du dara mbir mi mbirum yàlla bàyyil ak yàlla ci sa bopp yàlla réglé la sa problème doomu aadama yi dañuy nekk ci booyin bu la neex nga jox ko numéro bi ah ah doomu aadama yi laa dañuy dugg ci booyin boo xam ne moo ëpp jàkka ji fees del plein waaye ñëpp wóolu nañ capitaine bi alaysa kazalik wóolu nañ commandant de bord bi alaysa kazalik ah ah biñ duggee ci gaa biñ duggee ci avion wu adduna wóolu wunu yàlla te avion bee bu mu nekkee ci kaw kan moo ko tee waaye gars yi wóolu nañ commandant de bord bi ndeysaan ñëpp wóolu nañ ko bañ nañ ko ba avion bu yéeg gars yi ñëpp ay tiit waaye bu décollé ba ne tere nga gis gars yi tàcc kër tër tër tër tër su ne kraj di wàcc bu ne traj rek ba ne kraj nga gis gars yi tàcc tàcc équipage yu quoi ñi ko yor dafa ne ñoom la awalam yara ila tayri fawqahum saafatin wa yaqbitna maa yumsikuhunna allahu akbar maa yumsikuhunna illa arrahman ah waaye nit ñi dafa ne ay nit la kon sunu borom subhanahu wa taala moo xam suba luy xew ci loxoom la nekk waaye wala yaalamu mata yaati almatar ahad illa allah taw bi kañ lay taw fan lay taw ñaata millimètre la kan moo ko xam sunu borom mën naa xiine Dakar taw ji ah taw ji feneen mën naa xiine feneen taw fii ma naaj bi mën nay génn muy taw asamaan bi mën na bañ a xiin sax muy taw kon mbir moomu ci loxo yàlla la nekk wala tadri nafsun bi ay ardin tamut kenn xamul ban suuf ngay dee yenn saa nga gis kuy përëx-rëxi di daw damay tukki damay dem nangam ndeke day deewi li mu yàkkamti ni yëpp dee lay lay yow heure am jot na day dem rek dee ah wala instant sax nga gis ku leb paas pour dee yi bu ma yegg di la wari di la fay ndeke du yegg ci yoon bi lay dee nit bakkanam ci loxo yàlla la nekk te sa heure dee bu jotee kenn du la avancer seconde kenn du la ko reculer dee rek la yastaaxiruna saa saatan la yastaqdimun kenn du la retardal benn seconde kenn du la ko avancer bu dee jotee dee la waaye bu dund jotee dund la kenn mun laa teree dund mais bu dee jotee aussi kenn mun la teree dee il faut nga dugg bàmmeel loolu tamit mbokk yi ci loxo yàlla la nekk wala yaalamu mata taqumu saa illa allah juróom yaa ngoog bés penc kañ la kenn xamu ko ku dul yàlla wa yasalunaka an isaa ayaana mursaha gaa yaa ngi lay laaj yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bés penc kañ la am na aaya bu mu ko wax ne wa yasalunaka ani saa ka annaka xafiyun anha gaañaa ngi lay laaj bés penc kañ la mu ngi mel ne yow da nga koo xam dara ñu la koy laaj wax leen ne laa yaalamuha illa allah na nga leen yëgal ne kenn xamu ko ku dul yàlla boroom xam-xam bi dañuy wax ne bés penc heure bi lañu xamul ak waxtu yi ak seconde yi amma bis bi xam nañ ko ñenn ñi sax dañ naan minute yi lañ xamul waaye xam nañ bis bi xam nañ heure bi loolu kan moo ko wax kan moo wax ne bis pénc xam nañ ko yéen yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ne bisu àjjuma la ci hadisu aadama bi yàlla bind aadama lan la yàlla wax lan la yonent bi wax bind nañ aadama bisu bisu àjjuma ñu dugal ko àjjana bisu àjjuma ñu génne ko àjjana bisu àjjuma mu ne yowmal xiyaam du jot lu dul ca bésub aljuma ñu ne ban heure la ñu ne tàkkusaan ci ngoon moo tax rabu àll yi bu àjjuma jotee benn rab du lekk benn rab du naan benn rab du fiix du kontaan ñoom ñëpp dañuy triste ba tàkkusaan passé ñu doog a jóg ndax dañuy jàpp ne tey la yowmal xiyaam doomu aadama yi nag bu a- bu àjjuma jotee ñuy jël weekend takk oto yi jubal sali wala ah ah koo wax mu ne weekend day dem weekend ah rabu àll yi ñoom bisu àjjuma du ñu lekk du ñu naan dañuy sëngeem allahu akbar lu tax ndax ragal tey la bisu àjjuma ndax du tey la yowmal xiyaam bi yàlla di wax tàkkusaan googu yàlla di giñ naan wala asr borom xam-xam yi nee na li tax yàlla di ci giñ mooy tàkkusaanuk yowmal qiyaam kon juróom yaa ngoog mooy mafatihul xayb kenn xamu ko kudul yàlla sunu boroom subhanahu wa taala moo tax mu ne laa yaalamuha illa huwa mu ne wa yaalamu moom yàlla moo xam maa fil barri li ci jéeri ji mooy li waw li li nga xam ne doomu aadama yaa ngi ci rab yaa ngi ci garab yaa ngi ci ah loolu mooy albar diddul bahr mooy contraire u géej wa huwa al yaabis min al ard mooy la wow ci suuf si sunu borom nee na wa yaalamu maa fil barri maa xam li nekk ci jéeri ji jéeri ji mbokk yi ñaata kilomètre la kan moo ko am jéeri ji ñaata ki ñaata me- kilomètre la ñaata mètre la ñaata nit ñoo ciy dund ñaata rab ñoo ci nekk ah ñaata njanaaw ñoo ci nekk ñaata jinnee ci nekk ñaata mbindeef ñoo ci nekk loolu lépp boo ko boolee yàlla nee na wa yaalamu maa fil barri man yàlla maa xam li ci jéeri li ci jéeri ji allahu akbar ñun fii am na loo xam ne mu ngi suñu wer sax xamuñu ko amma suñu borom wa yaalamu ma fil barri ndax foofu rek la mu ne wal bahri ak géej gi sax xam naa li fa nekk lu tax mu xam ko ah moo ko moom moo ko bind alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir moo ko moom moo ko bind mooy boroom walillahi xazainu samawati wal ard moo tax moo ko xam ah allahu akbar xoolal doomu aadama yi bi ñu commencé jàng ba léegi ci suuf si am na loo xam ne xamaguñ ko démb laay gis ñu ne xaw ma am na benn étoile encore benn bu ñu lan bu ñu trouvé boo xam ne am na lan gaz démb démb chaque jour doomu aadama yi ci suuf si yàlla bind leen ñu ci gis lu ñu xamut woon chaque jour ñu ci gis loo xam ne xamuñu ko woon xamuñu dara fu mu nekkoon waaye yàlla ci ay xéewalam ak kattanam moo koy génneel doomu aadama yi wa yaalamu ma fil bar wal bahr moom yàlla moo xam li ci jéeri ji ak géej gi kan moo xam li ci géej gi ah kenn xamu ko ku dul moom yemu ci loolu mu ne wa ma tasqutu min waraqa ak lay wadd di daanu nekk ay xob di jóge ci garab di wadd ci suuf moom yàlla mu ne moom moo ko xam garab yi nekk seen kër kan moo xam garab yi ñaata fab la am na ñoo xam ne bi ñu juddoo fekk nañ garab seen kër ñen ci yéen ñoo judd fi fekk garab seen buntu kër wala seen digg kër ah am naa ñaari nit ñett ñeent doy na yéen ñooñu garab yooyu ñaata xoba ci nekk am ngeen ko ah pourtant foofu ngeen ko fekk yéen a ko mag war ngeen koo mën a xam ah waaye yàlla rek moo ko xam ku la ko doon compté loo sax ndax di nga ko compté wala doon machine à calcul yéeg ci kaw garab gi toog ñu ne looy nga damay compté xob yi nit ñi de ñaar ah kii est ce que duñ ko yóbbu fële dalal xel xool ko wala allahu akbar xoola yàlla ne moom nee na xam na ko wa ma tasqutu la cay wadd min waraq ci ay xob ah mu ne illa yaalamuha lu dul moom yàlla xam na ko allahu akbar xam na la fa des xam na li wadd jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne wala habba du benn grain pepp loolu ngeen naan pepp dugub wala pepp ceeb wala pepp wala pepp wala pepp wala habba du benn pepp benn grain fii zulumaatil ard bu nekk ci biir lëndëmu suuf lu dul moom yàlla xam na ko baykat bi day jël saaku gerte dem ci àll bi ruuj daa di suul dem suñ ko ne woon ñaata doomu gerte nga ji tey du ko tontu moom li mu suul yàlla xam na ko ah kooku sax ay gerte lay jël ñaari doom amma kii ji dugub moom day ŋëpp di sotti sunu borom tabaraka wa taala xam na la muy sàkk ci dugub bi di ko def ci suuf xam na ko xam na bu baykat bi bayoon ba pare xam na ñaata grain tey la bo la la baykat bi suul ci suuf si allahu akbar loolu sax dafa dafa tuuti waaye da ngay da ngay dugg àll yi tey jii fi ñu toll mu taw nga gis àll bi yëpp verte kan moo saxal ñax boobu garab yooyu kan moo ko saxal kan la dem leen àllu Casamance bi ngeen laaj waaw waaw fii yan paa ñoo fi ñëwoon di saxal lii ban àll moo gën a ngand ci àdduna bi amazonia ah amazonie ku ko saxal ay nit ah kan moo saxal garab yooyu allahu akbar kan moo ko roose ba mu toll noonu kan moo ko sàmm ba mu toll noonu sunu borom subhanahu wa taala moo tax gis nga waxoon naa leen sànq yàlla daf ñuy won kattanam ci aaya yi di nekk sunu kanam li mooy won ne yàlla mooy yàlla waaye toog fii Sénégal lekk sa ceeb ba suur naan ataaya naan sëñ bee bind yàlla loolu loolu du kufru loolu du reewande nga defa ne moo tax xooleen bi ñu ko waxee ba léegi Sénégal a ngi lakk bàyyiwu leen ci xel de biñ baat yooyu génnee ba léegi Sénégal a ngi tàkk te xamaguñ fu ñu jëm ñun ñëpp war a tuub baat boobu sëñ bee bind yàlla xoola reewane googu rek kenn xamul safara si fi muy jógee yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla wàllu Sénégal yal nañu yàlla wàllu Iblis li muy bon bon Firawna li muy réew réew réew musuñu wax lii ñii kii wax wala mbindeef yàlla yi ki ci gën a bon mooy Iblis Iblis li muy réew réew réew réew réew réew réew li muy alku yëpp waxu waxul ne yàlla dañ laa sàkk bal sax moom reconnaître na nekkug yàlla Iblis ndax wax na ne inni axaafullah man ragal naa yàlla waaw ba pare mu teg ci rabbal alamin gars yi nee nañ keroog ba ib Firawna taxawee ci Égypte daan ne ana rabbukumul ala maa yàlla ju ngand ji Iblis daa jóg ba ci kaw bàyyi ko ba mu dugg ne Iblis ñëw fëgg kon kon kon kon Firaaw ne kookan la mu ne ko yaa mën a fen yow yow nga ne yaay yàlla te xamoo ko fëgg waaw nga ne kon da ngay fen nga ne da ngay fen ñaar ñooñu ñoo fi gën a bon waaye ñooñu musuñu taxaw ne nit moo bind yàlla diw moo bind yàlla ne ko bu ma ci feeñ bal sax waa ji ci kàddoom yu garaaw yi mu ne yàlla bu nekkee yàlla diw a tax allahu akbar ah war na ko koo sante léegi xam nga li ma waxoon ajjuma bële paase nga ni diw moo bindi yàlla anamu anamu anay way juram anay maamam anay doomam anay soxnaam ah ñëpp dee nañ ayna allah ana yàlla xayyun laa yamut ah léegi moom mu bind yàlla pare dee bàyyi fi yàlla loolu kay dëgg-dëgg du ful la ku bind yàlla kay waroo dee waaye loolu la alquran naan wala qad qaalu kalimatal kufri wax nañ baatu kéeféer waaye baat yooyu ñuy wax ci réew mi suñ ci suñu daytaluwul baat yoo xam ne yakaadu samawaatu yatafattar na yàlla dañ ne am na doom rek asamaan di xotteeku montagne di mab suuf di xar lu tax an daaw li rahmaani wala daa ndax nee nañ yàlla am na doom léegi nag bu ñu ëppalee baat boobu ne yàlla dañ koo defar nag ñi ne yàlla am na doom sax ñoo tane ñoo tane ki ne yàlla diw moo ko defar ñooñ ñoo tane ndax ñi ne yàlla am na doom moom xam nañ ne yàlla am na dañ koo fenal ki ne yàlla dañ koo sàkk nag mooy yàlla moom mënul dara moom sax ci boppam dañ koo defar dara la mënut te loolu dégg ngeen ko fii Sénégal débordé wul yëngatuwul mu ngi ci whatsapp yi mu ngi ci internet bi xanaa après xam naa bi coow li bare la la xam ne li mu wax ëpp na mu ne day tuub te tuub bi sax déglu ko de déglu bu baax xam ne kii tuubul bu fekkee am ngeen image bi mu ne tuub na man de maa ngi koy re ku ko déglu sax xam ne kii tuubul maanaam li mu wax dellu tuuti ci ginnaaw tarfatal ayn waaw li gi doy waar nag mooy kilifaam ne ñun ñoo ko wax loo waaw ñoo ko wax loo li mu wax nii ñun ñoo ko wax loo moo tax mbokk yi xaar leen Sénégal leneen lu dul ay lakk-lakk xaar leen ci leneen ngeen dégg ci leneen borom bi nee na wa ma tasqutu min waraq laa yalamuha wala habba du pepp fi zulumati l ard nekk ci lëndëmu suuf wala ratb du la ca tooy wala yaabis du la ca waw illa fi kitabin mubin lu dul man yàlla enregistré naa ko ci téere bu biir muy lawxul mahfuz wala borom doole bi ki xam li ci suuf si xam li ci géej gi xam li nekk ci garab yi xam pepp yi yi nekk ci ñu suul ci biir suuf xam la ca tooy xam la ca waw lii ñun ñi nekk fi yëpp kenn ci ñun xamu ci dara wala lii koo interpellé tey ci àdduna bi xamu ci tus daf lay romb daal dem yoonam amma yàlla tabaraka wa taala mi boroom mi boroom kàttan mi boroom mën-mën mi ko moom nee na lu dul man yàlla enregistré naa ko fii kitaabin mubin fii lawxil mahfuz kitaabul maqadir ba tey mu ngi woon kàttanam moom yàlla mu ne wa huwa moom yàlla alladi mooy ki nga xam ne yatawafaakum moo leen di faat bi leyli guddi leen di nelawloo waaw yatawafaakum bi leyl moo leen di nelawloo moo leen di faat dindi seen ruu yi ci seen yaram yi ba ngeen mel na ñu dee waaw kan moo koy def da ngay gis ku k- borom kattan borom doole li muy ngand ngand ngand ngand yàlla benn mbër mu ndaw la koy booleel mbër mi daaneel ko mbër moom mooy kan déedéet balaa nelaw balaa nelaw gëmmentu nga gis waa ji ni mu ngande mu naan ba télécommande ba de yaa ngi nelaw de mu ne déedéet damay kii rek gars yi nee nañ da ngay gis kuy nelaw ñu ne ko yaa ngi nelaw mu ne nelaw ma de kenn dong lañ musa ne yaa ngi nelaw mu ne waa fekk daa dee amoon nañ benn xarit bu tudd Ben Laden chauffeur clando la saa yu ñëwee ci garage bi rek pour rang la comme rang la bu ñëwee rek moom day nelaw bàyyi ne ko eh, eh, sa tour jot na de mu jóg yaa ngi nelaw mu ne nelaw ma waay ba waa garage bi sonn ci moom mu droite di xaar rek gars yi bàyyi ko mu nelaw mu nelaw nelaw nelaw garage bi wàcc ñëpp ñibbi bàyyi fa gardien bi gardien bi bàyyi ba dégg asalaatu te ko eh mu ne nelaw ma waaye mu ne ko waa jugal julli salaatu jugal jugal julli fajar nelawoo kay jugal julli fajar nelaw ma waaw gis nga de allahu akbar sunu borom ay fekk kilifa ci biir saalam ndeysaan mu toog yéegi jeex rek naan nii moo tax gis nga sunu kilifa yi duñu yàgg ak nit ñi benn duñu lekkandoog nit ñi gis ngeen du ñu toogandoog nit ñi deux minutes rek ñu ne fatu na buy toog 30 secondes faiblesse di génn nga gis fu mu faible génn su tegoon suñ tegoon fii léegi léegi laax muy ñaag rek nga gis sikkim bi ah nga ne kii moom mën na dank di wala leen di leen di nëbb buñ tegoon léegi yàpp bi mun a karaj ne nii sàqami yii taq yii fii ah nga ne ah waaw ndeke man sama kilifa gi moom nii la bëggee ginaar voilà dañ leen di nëbb gis nga du ñu lekkandoog nit ñi du ñu toogandoog nit ñi ay minutes yu ndaw rek ñu yóbbu la nga dë- nga dugg même bu julli jotee sax am na ci ñoom ñoo xam dañ leen di yóbbu ñu dem julli ji duñ jullindoog nit ñi ndax doomu aadama soo yàggee jaxasoog nit ñi rek nit ñi gis sa manqué manqué gis sa faiblesse léegi parce que doomu aadama nga alkamaalu li man yàlla rek a mat waaw yàlla rek a mat moo tax yàlla di ñu woon kattanam wa huwa allazi moom yàlla yatawafaakum moo leen di faat bi leeli ca guddi ci ay nelaw wa yaalamu moom yàlla xam na maa jarahtum bin nahaar la ngeen di def bëccëg ma kasabtum bi jawaarikum min xayrin wa char allahu akbar su bëccëgee ku nekk tàggoo ñii jaar penku ñii jaar sow ñii di yéeg ñii di wàcc ñii di dugg ñii di génn ku nekk la nga def borom bi nee na xam naa ko maa jaraxtum bin nahaar lépp lu ngeen def ci bëccëg yi man yàlla xam naa ko da ngay am borom kër wala nga am jëkkër wala nga am jabar wala nga am ay doom ku nekk génn dem ku góor ki nekk ci li ko neex ku jigéen ki nekk ci li ko neex doom yi nekk ci lu leen neex góor ak jigéen guddi jot ñu dégg siwaat ci kër gi dara mel ne xewul kenn xamul lu xew waaye yàlla moom xam na lu xew yàlla moom xam na li xew borom kër gi nag mën naa bañ a xam li xew ku góor ki mën naa bañ a xam lu xew ku jigéen ki doom yi waaye amma borom bi tabaraka wa taala laa yaxfa ala allahi shay'un fi l ardi wala fi sama lépp moom yàlla xam na ko wala mu ne wa yaalamu moom yàlla moo xam maa jaraxtum bin nahaar li ngeen fàggu ci bëccëg yi summa après nag moom yàlla moomu yabaasukum fiihi moo leen di dekkil moo leen di dundalaat delloowaat ruu gi seen yaram ngeen delloowaat dund xëy ku nekk cëppi cëppi uti lu mu def yuqizukum moo leen di yee li tawaasulu al amala ngir ngeen continuer liggéey ila nihayati al ajalil musamma bu ñu yeewoo ndeysaan fajar nga gis nit ñi di jóg di jóg di jóg di jóg di jóg balaa bëccëg nga gis li wéetoon lépp dundaat bu la nee nit ñi ci waxtu yu ndaw nekkuñu fi woon doo ko gëm waaye bu guddi gi jotaatee yàlla defaat loolu fi mu nekk nii am na waxtu woo xam ne boo génnee doo dajeeg dara doo dajeeg kenn ñëpp ya ñu ngi ci seen biir kër yi waaye am na waxtu yoo xam ne encore da ngay génn dafa ne nit ñi nekkuñu ci ci biir kër yi ñëpp a ngi ci mbedd yi sunu borom subhanahu wa taala moom moo organisé noonu mu ne lu yuqda ajalum musamma ngir lan moom yàlla tabaraka wa taala moo dogal ci yéen dogal goo xam ne dafa am fu mu yem lii ngay dox yépp nag di cëppi cëppi am na fu mu yem am na ajal musamma digg gu ñu tudd su ñëwee jeex na waaw bu waxtu nelaw bi ñëwee da ngay nelaw bu waxtu dee bi ñëwee da ngay dee kenn mënu laa protéger loola tukulóori naan daanonam daanotaa ko ñaamonam ñaamotaa ko nelaw jot nga ne déedéet tey du ma nelaw nelawal ma waay munul nekk lekk jot nga ne du ma lekk lekkal leen ma munul nekk mu ne summa topp ilayhi ci moom yàlla marji'ukum lañ leen di delloo ëllëg ci yàlla rek la ñuy dellu summa yunabbi'ukum mu xabaar leen mu xamal leen bi ma kuntum taamaluuna lépp lu ngeen doon def moom yàlla mu xamal leen ko mu xabaar leen ko allahu akbar summa ilayhi marji'ukum ci moom yàlla moomu nga xam ne moo def lii lépp ci moom yàlla moomu la ñuy dellu ëllëg duñu dellu ci ma sàmba duñu dellu ci ma demba ci sunu borom moomu ci moom la ñuy dellu suñu delloo ci moom luy xew summa yunabbi'ukum mu xabaar ñu mu xamal ñu mu génneel ñu bima kuntum taamaluna lépp lu ngeen doon def kon lii rek li waa ji doon wax ne bu ngeen jàngee aaya ba mu jeex bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee dëgg-dëgg yàlla bu ne ci man ngeen di dellu te dinaa leen wax li ngeen doon def kon ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel ne ci moom yàlla la ñuy dellu te danañu xabaar li ñu nekk woon fii ci kaw suuf ba tey ci kàttanam moom yàlla mu ne wa huwa moom yàlla alqaahiru mooy ki noot mooy ki mbëru fawqa ibaadihi ci kaw jaamam yi mooy li ma doon wax sànq mooy diw moo bind yàlla ba pare dee kon ngay xam ngeen ne du dëgg lan moo leen di wane ne kattan ya kattanu yàlla moom mooy du dee moo bind ñëpp waaw moo leen def ay xale def leen ay jeune def leen ay grand def leen ay pa def leen ay màgget rey leen moo leen dundal moo leen wéral moo leen feebarloo loolu mooy alqaahir mooy ki leen noot kenn mënta génn ci pouvoir am man lam yarda ala qadaa yi man yàlla li ma def ku mu neexul walam yasbir ala balaa yi samay natt mënoo koo muñ ah mu ne na nga génn sama suuf asamaan bi génnal suuf asamaan bu la asamaan tiim na nga dem beneen suuf nga jaamu fa yàlla beneen yàlla acca tey sa kër boo amee problème bu la neexee nga jël sa bagage léegi léegi yenu ko ñu ne fa ñëw nga damay toxu parce que fi kenn mun fi dëkk jigéen sax day sëy ba jaag daal di gàddu bagage am lan la bëggatuma wala doom jékki-jékki ne bëggatuma damay dem kenn mun te nekk ak paa bi ngay liggéey fenn ba jaag nga ne neexuma damay dem nga nekk ci dëkk ba caag nga génn ne neexuma damay dem aca mereen yàlla nga yenu sa bagage ah waaw nga nekk ci biir classe sax prof bi neexu la nga génn ah waaw prof bi neexuma dara nga génne dem toogi fële ah waaw léegi nag acca kenn ci ñun mbokk yi na mere yàlla gàddu bagage am jël ay bagage am yenu valise yi waaw ñu ne fooñam nga ne man suuf si laay génn waaw yàlla neexuma dara acca yàlla nee na acca bismillah génn leen toxu leen dem leen foo xam ne asamaan du leen tiim bu leen dox ci sama suuf acca loolu mooy alqaahir mooy notaa koon bi yàlla moonu noot mënuñu génn ci moom allahu akbar pouvoir am kattanam moom yàlla xoolal da ngay gis waa ji lu mu ngand ngand ngand ngand ngand ngand yàlla feebar loo ko benn waaju reew daawul jaamu yàlla ndeysaan benn mbokk di ko waar war nga ragal yàlla war nga def nangam gis nga bisa ngi ñëw yàlla dina la rey soo moytoo gis nga sa jabar ji beneen waay takk ko mu jóg taxaw nekkoon gis nga damay nangam bàmmeel bi saaga génn ñëw fekk waa jooju ma nangam ko yàlla natt ko mu feebar ñu yóbbu ko principal principal def lépp mënuñu ko dara ñu dugal ko avion yóbbu France ki ma doon nettali xista bi nee na waa ji bi mu nekk bi mu wàccee aéroport ñu teg ko ci puus puus mu ñëw di ko jël si waa ji nee na musuma jooy mais keroog jooy naa ndax ni ma ko xoolee ak ni mu mel rek sama xol dafa tooy ma daal di jooy waa jooju anamu tey dee na keneen takk na jabar ji aca na génn na génn na na bule bàmmeel bi ñëw dóor waa ji yàlla mooy nota kon bi mbokk jullit yi yàlla du sunu morom yàlla borom la du moroom wa huwa alqaahir fawqa ibaadi moo noot jaamam yi mburu seen kaw waaw waaye loolu yëpp ndeysaan wa yursilu alaykum xafaza moo nuy yónnee ndeysaan ñu ñuy wat allahu akbar ndeysaan mu ne wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi zul qahra tamma mooy borom nootaakoon bu mat bi wa sultaanil kaamil borom pouvoir bu mat sëkk alal xalqi ajmain ci mboolem mbindee fi nag koo fi dégg buur la bu yàggee nga dégg ñu ne dee na bàmmeelam a ngi nii wa yursilu alaykum ayuha nnaas hafaza moom yàlla moo leen di yónnee ñu leen wattu waaw almalaika alkiram alkatibun wa hum arbaa malaaka yi nga xam ne ndeysaan ñoo ñuy sàmm yàlla yónnee ñu ko ci ñun ñu ñuy garde ñeenti malaaka ñaar guddi ñaar bëccëg ñaari malaaka guddi ñaari malaaka bëccëg ñooñu yàlla naan kiraaman yaalamuun ñooñu yàlla naan raqib ak atid maa yalfizu min qawlin illa ladayhi yàlla yónnee ñu ñaari malaaka ndeysaan ñu ñuy wattu hafaza mbokk yi ñu ñu nekk biir jàkka ji suñu Macky Sall kenn ku nekk yónnee woon ñeenti mala ñeenti gendarme ñaar ñi ñoo lay garder guddi après ñu wàcc ñeneen ñaar monté nu ñuy def wala gendarme sax daa ëpp ah gendarme daa ëpp ñaari policier ah nan la ñuy def danañ normal wala duñ normal ah danañ jub wala duñ jub ah danañ góorgóorlu ci Macky Sall li mu wax mu ne toppal ma kii ñaar ñi garde kii kii nii gardeel leen ma ko lu mu def rek après ngeen ñëw wax ma ko na ngeen ko bind na ngeen ko xool fu mu dugg ah suba yéen ñaar balaa ngeen dem xaar leen ñaar ñi bañ ñëw ngeen doog a dem allahu akbar ay mbokk yi ñun ñëppay normal fii mag ak ndaw góor ak jigéen ñun ñëpp dañuy jub xocc waaw lu tax yàlla yónnee ñu ay malaaka yu ñuy garde ñuy ñàkke yàlla kersa yastaxfuna min annas wala yastaxfuna min allah wa maahum ndeysaan allahu akbar benn waay ci waykatu arab yi dafa noboon benn xale bu jigéen bu tudd Layla moom la ñuy woowee majnuunu Layla bu ngeen demee ci téere adab yi di ngeen fa fekk xista bi waa ji dugg benn dëkk rek ñu ne ko xale bu jigéen bi nga nopp Layla mu ne ñu ne ko xaj bi moom moo ko moom boo toppee xaj bi di nga gis xale bu jigéen bi mu topp xaj bi xaj bi dugg mu dugg mu dugg benn àll rek mu fekk fa ay nit di julli mu romb leen mu dem topp xaj bi topp xaj bi ba gis xale bu jigéen bi ba mu tourné mu ñëw fekk ñooñu julli ba pare toog ñooñu ne ko yow sànq jaar nga fi mu ne waaw ñu ne ko lu tax nga gis ñu ñuy julli ñëwoo julli mu ne man boobu Layla moo ma ñor xaj bi rek laa gis gisuma leen gisuma leen de mu ne yéen nag bu yeboo ngeen julliwaat ndax yéen julliwu leen ndax bu ngeen doon julli yéen a ngi ci kanam yàlla waru leen ma woon gis kon julliwaat leen moom waa ji sax moo ëpp gaa yi pas-pas ñi doon julli ndax moom xaj bi rek la gis ñee nag ñi ci kanam yàlla gisuñu yàlla moom mu ne ci kanam xaj bi mu gis xaj bi ah mu ne yéen nag bu yóbba ngeen baamtu seen julli parce que julli wu leen ndax bu ngeen ma doon julli yàlla ngeen di bu ngeen doon julli yàlla ngeen di gis waru leen ma gis allahu akbar moo tax il faut ñu bàyyi xel suñu bopp sunu borom subhanahu wa taala moo nu yónnee ñu ñuy wattu ay malaayika wa yursilu alaykum ayuha nnas man yàlla maa yónni ci yéen nit ñi hafaza ñu leen di wattu bi leyli wan nahaar ci guddeeg bëccëg yaktubuuna amalakum dañuy bind seeni jëf waaw kenn ci ñun durus malaaka yi nekk ak yow suba ba ngoon daa dem daa di jox yàlla li nga yendoo def ñu xool gis ay bàkkaari kese la ñi ñi nekk ak yow ngoon gi ba guddi gi jeex fajar gi borom xam-xam yi nee nañ ci julli suba la ñuy remplaçante ndeysaan tafadale cheikh waaw te ñoom buñ demee duñ ñëwaat ñeneen ñooy ñëw wallahi alazim te buñ ñëwee ndeysaan ñu fekk gaa yi di julli ñi remplacer ak ñi dem suñ deewee ci yàlla yóbbu dossier bu ñu demee yàlla mu ne waa ana sama jaam yi ah ñun de bàyyi nañ leen ñuy julli bu ñeneen ñi demee ah ana sama jaam yi ñun de bàyyi nañ leen ñuy julli yéen bu fekkee doo dem ci jàkka ji nag da ngay nelaw rek su ñaari gaa yi ñëwee fajar fekk la ngay nelaw ana sama waa ji ñu ne ma ngay nelaw bu ñeneen ñi ñëwaatee ana sama waa ji ma ngay nelaw kañ kañ kañ kañ lañ lay bind ne yow yaa ngi jaamu yàlla ana sama waa ji moom de ma ngay saat ana sama waa ji moom de ma nga ca télé ba rek toog ana sama waa ji moom de mu ngi ci keppaaru xale yu jigéen ñi rek toog ana sama waa ji moom de ma nga allahu akbar bu fekkee ne li ma waxoon sànq rek président kon la ñuy jox document yooyu président woola rek nga am problème am maa nag yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu doomu aadama yi war nañu rus yàlla dañu rus yàlla tabaraka wa taala suñu borom war nañu rus suñuy jëf dem ci yàlla fekk lu bon kese moo ci nekk mu ne hatta iza jaa ahadukumul mawt ba kenn ci yéen nag léegi dee dikkal ko allahu akbar hatta iza jaa ahadukumul mawt kenn ci yéen nekk ci caaxaan yooyu ci yu bon yooyu ba dee ne karab mu bëgg nag léegi ne yàlla may ma ma dellu rek àdduna dinaa julli dinaa woor dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa fekk hay haata hay haat béy wey na mbuus mu ne bu leen dee dikkalee mbokk yi ku mën ci dee dara ah ndax dee am na garab ndax am na ci ñun koo xam ne bis bu ko malaakal mawti dikkalee day jël position ne ko di nga xam ne man tay kawunda laa kii ne mu ne man karateka laa kii ne man linjan centre noir cinquième dan ñëwal police sax bu la jël sa yenn saa yi nga révolté police ah yenn saa yi nga gis police jël si nit police duñ ko mënal dara mu ñu def renfort allahu akbar bi ma gënee nekk xale suñu benn kër dëkkandoo fii paa bi dafa màgget doomi ñëw di ko jël si mu bañ a dem doomi jaay kër gi di ko jël si mu bañ a dem mun a dem moom moom kër gi du bouger parce que amatul ku mu nekkal ñëpp ku nekk ñëw wax mu ne mu ne moom génnul kër gi ki jënd kër gi ñëw mu ne génnul waa ji dem jëli police ndeke paa bi ci guddi gi dafa fanaane baxal bëri ko ndox waaw bi police ñëwee ñaari oto paa bi yor siiwo ku jege rek mu ne la far ga nga daw waaw gaa yi yendoo ndoog moom kenn ñemewul jege ñëpp di ko tàcc waa koñ bi siwo ndox bëri ndox mu tàng jër la yor ku ku jege rek mu xëpp la kenn ñëwul jege te gars yi bëgguñu ko rey moom ñoom moom ñoom moom ñu jëli sapeur yi ñoom ñoom ñuy yëg ci kër yi fu nekk ñu dugal ay échelle pour jàpp duma ko fàtte mukk ba léegi kër googu su ma ko rombee sama xel day dem ci góor gi kon gis ngeen amma xoolal doomu aadama lu nekk da lay jëli ay gendarme ay nangam armée jëli la ngay xeex ak ñoom malakal mawti nag moom bu la jël see y a pas de xeex ndeysaan ceinture boo takk keroog di nga ko tekki doole boo am keroog doole bi dina dem las ngay def las ndeysaan moo tax Cheikh Abdoul Hamid kis ki mu ne bu doomu aadama tollee foofu nag yàlla malaaka yi taxaw nag di wax ak moom nag ibnu adam ay na quwatuk ana sa doole ay na riihuk ana sa xeet ay na maaluk ay na quwatuk ay na sultaanuk ana nguur gi ana soxna yi ana doom yi ana ana ana ana ana ana ana ana ana ndeysaan doomu aadama ne pat mu ne ko maa adda afaka dara gënu laa yambare ndeysaan dara gënu laa yambare maa adda afak dara gënu laa yaafuus war nga xam waroon nga xam ne tey bisu tey bii dina ñëw yàlla du sunu morom de ha tukulóor yi nee nañ allah sa hulaaka jola ñan ñooy tukulóor fii ñan ñooy pël allah sa hulaaka jola wallahi alazim allah soo hulaaka tan o jola yàlla buñ ko ragalu rek da koo neex xoolal fii nga toog nii yàlla bu la bëggoon yar rek bu yëngaloon benn cër bi gën a tuuti ci yow mooy bëñ bi su ko new nii da nga ni doo too waxati ni nga dem ni ngay commencé naan nii mel ne allahu akbar te moo gën a tuuti kon bu yëngalee biir bi nag bu yëngalee bët yi nag bu yëngalee bopp bi nag bu yëngalee tànk yi bu yëngalee butit yi nag yàlla du sunu morom de yàlla du sunu morom mbokk yi yàlla dañ ko war a wekk dañ ko war a gëm dañ ko war a bëgg ndax moom mooy sunu borom moom moo ñuy rey ndeysaan hatta iza jaa ahadukumul mawt tawaffathu rusuluna samay ndaw ñoo leen di rey juróomi malaayika cortège ñooñu la yàlla di giñ ci wan naziaati gharqa wan nashitaati nashta juróomi malaayika suñu didee ñoo lay rey yàlla wax na falawla ida balagati alxulquuma wa antum hiina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun bu waa ji waree dee gaa yi di yuuxu ku nekk di wax fekk ruugi egg na ba fii ci bëli gi yàlla nee na maa leen ko gën a jege waaye gisu leen boobu ndawi yàlla yaa ngi taxaw tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituun allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala laa yudayiuun wala yuqassiruun waaw duñ ko sàggane duñ ko wàññi kenn du la yokkal benn seconde kenn du la areeral benn minute munoo ñaxtu ñaxtu wala say doom wër la wala say jabar wër la wala say mbokk wër la ba yërmande am fi ñu daal lay reculer ñaari minute déedéet da dee rek da ngay dee wa hum la yufarrituun mu ne summa ruddu ila allah mawlaahum alxaq allahu akbar ñu daal lay laxas nag génne la kër gi wàcce la lal bi nag jubal la ca morgu ba ñëw futti la ba nga set sàng la sàng la yeew la ba nga dëgër teg ci kanamu jàkk ji jullee la nag yëkkati summa ruddu ila allah ñu ngi lay delloo ci yàlla mu nga bàyyee koo woon yàlla naan la yaa abdi ibnu adam xarajta min atturaab wa utta min atturaab xarajta min atturaabi bila zamb wa utta min atturaab wa kulluka zunub doomu adama bi ngay génn ci àdduna day ci suuf nga génne woon ñëw àdduna waaye tey yaa ngi génn àdduna di dem alaxira yaa ngi fees dell ki bàkkaar bunu la yóbbee ba ma bàmmeel yi yàlla mu ne yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafaauuk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alxayu allazi la amut summa ruddu ila allah ñu delloo leen ci yàlla mawlaahumul xaq yàlla mi nga xam ne mooy seen buur mooy seen kilifa te mooy kilifa dëgg alaa lahul hukmu ndax yàlla nee na moom ma justice bi alaa lahul hukmu ah, balaa balaa yaa rab wa huwa asraul xaasibin moom yàlla moom moom atte moom kenn cundung keneen bokk ci allahu akbar allahu akbar waaw moom yàlla moo dogal ci nit ñi dee kenn mënu ko dindi wa huwa asraul xaasibin moo gën a gaaw régler réglekat yi waaw ndax diggante xef ak xippi rek yàlla day régler yëpp jàng ngeen ko ci suratul xaasiya yàlla ci li gën a ndaw seconde mu àtte àdduna bi ñi dem àjjana xam ne àjjana lañ jëm ñi jëm safara xam ne safara lañ jëm wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun yéen ñu baax ñi yéen ñu bon ñi génn leen ci ñu baax ñi rek ñu bon ñi daal di taxawee fële waaw asraul xaasibin mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala wax na wax ju dul dellu ginnaaw mu maa yu baddalul qawlu la dayya sunu borom waxam du deñ sunu borom waxam rek a dëggu moo dëggu démb moo dëggu tey mooy dëggu ba bañ koy fekki li mu wax mooy am maadaama xam nañ loolu kon nañ leen jéem a góorgóorlu tegu ci raay bi tegu ci siraatal mustaqim yal nañu yàlla teg ci raay bi loolu moo nekkoon dar sa tey soo amee ay njuumte ñu ngi koy jégglu sunu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su amee ay laaj incha allah ñu gaaw